والقلم وما يسطرون Modou Xabaan daf ko jox kàddoom sëñ sëñ Modou Mahfous itam jox ko kàddoom ndax euh, kàddu gi nga xamante ne ni moom la ko xalifa bi yabal kon sëñ Muntaxa bismillah bismillahi arrahman alladi anzala alquran fi shahri ramadan هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل رحمة للعالمين وقطبة للعاملين وحجة على الطاغين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu mbooloo mu fi daje ñépp ci tuuru Cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye ci kàddoom waaye ci ndigalul Cheikh Mamadul Xabaan wi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk mboolem la aju ci daara alxuraan yi man daara ay daara boppam la may saytuloo waaye mboolem la aju daara yi Tuubaa sëñ sëñ Xabaan mii moom la ko dénk xam naa xam ko moo tax sëñ bi bi ñu ko koy fàttali bi dafa dafa guddi lool xam ne moom bu ko bu ko xasee yëg lu mu nekk dana ko bàyyi te xat na loolu moo tax mu ne ma yow demal bi may ñëw ndax laaj naa ne sëñ xabaar bu ñëwee day moyool kàddu bi kon ci kàddoom laay waxe ci ndigalam laay waxe kàddu sax mu mu taxa sëriñ bi nee na mi ngi santaat yàlla bu baax ginnaaw mu jotlee ay nuyoom ci alaaji sëriñ mi nga xam ne yitteem yu rëy ay yitteem ju kowe moom ñi mu àndal liggéey bi ñoo taxawal lii nee na am na yëg-yëg bu baax ci liggéey bi di ko bàyyi xel bu baax waaye di leen sant di ko àndak ñoom waxtu wu nekk nee na muy liggéey boo xam ne mooy lépp lépp lu baax ci alxuraan la soqi ko ndax alxuraan mooy fondement lépp kuy fon fon kuy tabax boo mul fondement bu dëgër loo ci teg mu daan alxuraan noonu demee lu baax lépp waaye mu jëme ko ci fu am solo muy dekkal mbind mbind mbindum cosaan mbindum mag ñi muy dekkal mbindum alxuraan ndax alxuraan itam bu suñ borom waxee ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun kon wattu googu sàmm gi ko suñu borom di sàmm kon li ci wàllu jaam yi mbind moo ci jiitu ku jàng ab téere ngay téye di ko jàng kon mbind moo ko fi saxal kon waaye mbind moo xam ne day ànd ak mbooleem xam-xam yi mbind laaj alxuraan rasm ak dabt day ngeen boole ñu fa doon def léegi loolu kon eh, alaaj sëñ kon wane na aw yoon woo xam ne fàttali la loo xam ne ñëpp ci war a bàyyi xel kon bind dafa mënta ñàkk eh, ndax mokkal li nga mokkal li nga li nga li nga tar ci saw làmmiñ bokkut ak li nga bind ci sa loxo li xel ni xel mi demee ci li ngay bind bokkut li ngay tari mën ngaa tari dem sa xel bañ waaye mbind moom faaw xel mi ne ci kon mokkal bu sax mbind koy joxe kon sëriñ bi nee na ñu ngi koy sant bu baax moom mboolem ñi nga xam ne ànd na ko ñoom muy sëriñ daara yi nga xam ne tey ñoom it ñoo bàyyi seen lépp ànd ak moom liggéey bi waaye di fàttali tam mag ñu baax ki nga xam ne ñoo liggéey liggéey ba mu agsi fii bu ñu tuddee bu ñu tuddee tey ki nga xam ne tey mooy suñu wax xadis yi mi nga xam ne moom lañ tuddee liggéey bi loolu doy na misaal loolu loolu kon mooy wane ne ñoom la sëriñ Tuubaa doon dénk mag ñi ne leen sëñ Muntaxaa nee na daf sëriñ sëñ bi daf daan faral di joxe ci ay dénkaaneem ne daan wax na na ngeen bàyyee seen bopp ak yàlla ku bàyyee sa bopp sa bopp ak yàlla danga am li nga bëgg te man mii seere laa Sëñ Tuubaa daan waxee na ngeen bàyyee seen bopp ak yàlla ku bàyyee sa bopp ak yàlla da am li nga bëgg te man mii seere laa ci waaw kon kon kon niti alxuraan ñoom buñ dee buñ dee wax ñoo ñoo ñoo ñooñu kon ñoo ne foofee sëriñ bi wax dañoo joxoon seen lépp suñ borom waaye yàlla fay na leen tey ñoo ñii nag seen liggéey boobu yi dafa mat a bàyyi xel xam ne ci la su ci la lépp ne waaw loolu moo moo tax sëñ Tuubaa di wax doon wax waxante téere bi ne ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa kunta qablu tabibi anta izzi wa mafxari anta jaahi anta kanzi yaa faxra kulli labibi waaw mu ne ko yow yaay sama xarit du ma tàggal ko yow yow téereb suñu borom bu tedd bi yaay sama soppe yaay sama docteur yaay sama teraanga yaay sama tedd nga yaay yow lay damoo yow yaay képp koo xam ne yo yaay ki ñëpp war a damoo ko am xel ku ne yow la war a damoo yow la war a def muy léppam ndax mooy lépp xul wali am na hudan wa shifa alxuraan mooy lépp suñ borom shifa la wax waxut dawaa alxuraan day faj waaw xul wali wa nunazzilu alxuraan maa wa shifaan wa rahma kon shifa la wax dawaa médicament garab dan da dan da nga ko jëfandikoo faju ñàkk faju waaye alxuraan mooy mooy mooy lépp jullit waaw moo tax mu ne ko anta tabibi kon euh, dañuy dellusiwaat rek xam naa di sant mboolem ñi nga xam ne tey ñoo daje ci bis bi ginnaaw bu ñu ndokkelee ci bisu màgg bi ci yaru màgg bi ndax bis bis bis bisub jullit ñëpp la bisu alxuraan bisub jullit ñëpp la kon ñu ngi leen ndokkeel ci bis bi leen ndokkeel ci weer bi ci turu sëriñ bi euh, kon ñi ngi sant kon mbooleem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi di ñaan nag lii fañ ko jëmee mu àgg fa ci noo koy njort yàlla yàlla noonu yàlla sàmm amiin amiin yàlla nu na aar amiin yàlla nu yàlla sax xiir ci boppam amiin amiin yàlla xiir ci boppam amiin amiin sëriñ bi nee na foofu rek la lépp ne ndax suñu boroom kat wax naa ak noonu yàlla dañuy wax suñu boroom boo yàlla boo boo boo bëggee mu defal li nga bëgg da koy danga koy defal li mu bëgg wax na ko wa man yattaqillaha yaj'al min amri yusra loolu leer la waaw kon le mën naa leer lool borom kër bi yor këram ak ak ak surgaam ak njabootam ka ko gën a déggal lu lu mu ko digal mu def lu mu xam ne bëgg mu nekk ca lu mu mën ci yitteem bu ab bu amee yitte lu mu ci man dana ko def suñu borom yi noonu la li ñuy wut lépp mi ngi ci nekk ci li nu sun sax ci li nu suñ borom sant waaw kon yàlla nu yàlla xeet ci boppam yàlla nu yàlla dimbali yàlla nu yàlla sàmm yàlla nu aar kon alaaji sëriñ ñi ngi ñi ngi ñaan rek lii jéego jéego yii nga jéggi yàlla na suñu borom tëbb kàttan yaa ñu ngi ko àndal fa nga bëgg mu àgg fa mu àgg fa ci njëriñu jullit ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. anta bi ni'mati rabbika bi majnun